di sant yàlla bu baax di julli ci yonante bi euh, di sant yàlla bi ñu duggee ci programme bi ci bisimilah rahmaani rahiim gën ci alhamdulilah rabbil alamin tey ñu ngi doon def forum bu am solo forum boo xam ne c'est le forum de l'horticulture àndoon ceeg docteur Macoumba Diouf parce que man maay Cheikh Ahmadou Bamba bu président association formation et section de lutte du Sénégal jot fi def lu yaatu jot nañ fi former ay mbër ci lu yaatu ci sécurité garde corps rapproché ak yeneen mais tey nag ñu jul dugg ci wàllu mbay mi te ku ne xam na ni mbayu dër mi dafa nekk mbay mu am solo mbay légume ak fruit tey nag ñu signé ci protocole de convention ak docteur Macoumba am yéene 14 régions Sénégal yëpp fépp fa lutteur nekk rek bu fexe laa jàppale ba nga dugg ci mbay mi gis si sa bopp te looloo waraloon jotaay bi di si sant le na Macoumba di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yokk di gërëm champion Eumeu Sène ak Tafatine bi nga xam ne ñëwoon nañ fi ñoom it ñu ngi leen di Pape du Fall euh, ak ak ak ak le maire de la Padoa ñu ngi leen di remercier ñooñu ñoom ñëpp di gën a tàllalaat loxo ni ku Macoumba def di gën a tàllalaat loxo président ay ndaw lañu jóge bitim réew def fa presque 12 ans bàyyi lépp ñëw Sénégal li ñu ñor mooy jéem a xool na lañ jàppale suñu réew li ñu ñor mooy jéem a xool ba xale yëpp am emploi tey taxawal nañ suñu structure bopp sax boo xam ni c'est arène bi sécurité nettoiement déménagement ëmb kooku taxawal nañ ko ñi ñu jot a tey xale yooyu bëgg nañu ñoom ñëpp tey état gën ñoo doole ak secteur privé yi dañ leen mën a recruter parce que loolu day yokk emploi en daal docteur ñu nekk ci terrain bi gis nañ ngi liggéey jàmbaar la am na rigueur boolewul lenn ko wax am na yar am na teggin kon nag horticulture bi mu yor yàlla na ko ci yàlla gën a jàppale di ñaanal ëmma di ñaanal ñëpp di ñaanal tafa di ñaan assistance bi teewoon yëpp association fii yëpp ñu di gërëm di gërëm presse bi yëpp di kontaan ci yéen jërëjëf jaajëf jaajëf